lay doona ci assemblée nationale ba xam ne assemblée nationale bi dina mën a daane la maanaam njiitu mi su dafa war askan wi la xam ne moo xew états xew ca diwaanu France mën nañu ko indi Sénégal kàddu di wàddu la ndax nee nañu ci assemblée nationale mën nañu faa def ay réformes yoo xam ne maanaam président bi bu jëlee ay engagement dem ba ci digg ba daal bu ko defee assemblée nationale a a noo xam ne PDS def na ko ak Macky Sall maanaam anduñoo te nee présidentielle 2024 yi nga xam ne moom la ñu dëgmal yéen a di enquête nee lu jëm ci mbiri Karim Wade ak Khalifa Ababacar Sall bu ñu ko lijjantee ba ñu mën bokk ci élection tout sauf Macky boobaa dafay jeex ci réew mi maanaam dafay tasaaroo yéen a di la Tribune nee na élection présidentielle 2024 yi nga xam ne moom la ñu dëgmal Ousmane Sonko Khalifa Sall ak Karim Wade seeni mbir leerul ndax jamono ji ñoo ngi ci ligne rouge yéen a kaay di réew ko di Sonko ginnaaw meeting bi nga xam ne njiitul Pastef defoon na ko ca diwaanu Kër Masara démb la waa Benno Bokk Yaakaar doon tontu Ousmane Sonko réew mi ko di jéem moo xëy ñu ko xibaara yéen kaay gii di l'Observateur nee na jamono ji nag bu ñu waxante dëgg coalition Benno Bokk Yaakaar ak ñi nga xam ne ñooy waa Pastef maanaam ñoo ngi defante ci lu jëm ci wàllum dajale mbooloo ginnaaw bi Pastef dajale mbooloo ca diwaanu Kër Masara démb la waa Benno Bokk Yaakaar ñoom wax ñoom moom la ñu wax lu Macky Sall waxul ñoom waxuñu ko Amadou Ba nee na bu Macky Sall ne weex na ñu ne ko weex na tàll monsieur président Amadou Ba nee bu Macky Sall ne xonq na ñu ne ko xonq na cur monsieur le président Amadou Ba nee na Macky Sall bu ne ñuul na ñu ne ko ñuul na kuk monsieur le président yéen a kaay gi délibération Amadou Ba nee na amul kenn ko xam ne mën naa déstabiliser réew mi maanaam Sénégal amul kenn koo xam ne mën na ko dugal ci ak pëccoxoo te loolu nag ñu ko nangoo l'état restera debout kaddu yu Amadou Ba la daat nay wax na ñoom ñi nga xam ne ñuy waa coalition Benno Bokk Yaakaar ay plan nekk fi naan ay xaw ma am nañ plan A plan B plan C Amadou Ba nee na loolee lépp ñoom amuñu ci dara Macky Sall daal am ci élection présidentielle 2024 Macky Sall la ñu am 2019 yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien Assane Samb xëy jël xalimaam nee na élection présidentielle yi nga xam ne moom la ñu dëg ma la wóorul Macky waaye tamit wóorul Ousmane Sonko bokk ci yéen a kaay gi di Les Échos Amadou ñu xëy ko fa nee na daal de Sénégal li la sa moom premier ministre bi de Amadou Ba ma ngi wane nag dooleema nee na képp koo xam ne provoqué leen ku leen door fayu leen loole la Amadou Ba wax ni ki démb yéenekaay gi di l'info nee na Amadou Ba nag nee na menaces yi nga xamante ni am na ñenn ñoo xam ne ñoo koy def ci réew mi dalal leen seen xel ndax nag benn bokk yaakaar ak a jamono ji am nañu doole boo xam ne mën nañoo défendre république bi défendre institution yi défendre président Macky Sall waaye nag moom Amadou Ba nee na tey ak suba ak ginnaaw suba yëpp Macky sala nañu ñu àndala yéenekaay gi di bés bi xëy di ñu xibaar ñu ni ki démb ca benn bokk yaakaar bi Ba daat nay wax militant benn bokk yaakaar yi ak yu APR yi leen ku leen attaqué riposte leen ku leen dóor fayu leen dee leen riposte kàddu yu Amadou Ba la nee na nag li moo koy lijjanti yéen gi di li ko di jaay moom Amadou Ba daat nay wax nag jamono ji xam nañu majorité bi fan la fare kan moo ëpp doole ci réew mi jamono ji xam na fan la fare yéen a kaay gi di libération xëy duñu xibaar naan ñu meeting bi nga xam ne nag waa Benno Bokk Yaakaar doon ñu ko amal ni ki démb baax waaye nag pëccëxoo gu rëy moom la ñu gis ni ki démb ci meeting ba ndax nag Mamadou Gueye maire bu Djiddah Thiaroye Kaw ay militant ak militant yi Abdou xamante ni maara day taali mën na xeex boo xam ne jéggi na dayoo saisi di naaw yéen a kaay si ko nee na en tout bi nga xam ne benn bokk yaakaar dem na ko niki démb ca diwaanu Pikine ca banlieue bu Ndakaaru mën na bi muy commencé daal bëri woon nay nit waaye nag ba demee ba sa ci pandaw ga mën na ñoo wax ne daal picc ne ku fa yéen a gi nee na pëcc xoo woon na xeex bi mel ni tulleeg màlle journal la mandat nee na Amadou Ba investir nee na mitinu benn ay nit ndax jël nañu lu toll ci quatre vingt def ko ci mitin bi quatre-vingt-dix millions quatre-vingt-dix millions la Benno Bokk Yaakaar organisé ab mitin ni ki dem ca diwaanu waaye nag Moussa Diaw di jàngalekat université Gaston Berger nee na méthode bii Benno Bokk Yaakaar jël ak Macky Sall du méthode bu baax de bu dee opposition bi bu ñu mobiliser nga ne da ngay mobiliser loole nag da ngay perdre sa temps gis nga Macky bu fi nekkee nag di jéem a kujje ak Ousmane Sonko loolee perte temps la de Moussa Diaw nee na Macky Sall jamono li nga xam ne moo ko war maanaam mu lijjanti li nga xam ne mooy jafe-jafe askan wi ndax dund gi seer na ba maara day taale Sénégal yi nag dañoo sonn de lu jëm ci wàllu wér gi yaram gi loolee Macky Sall daf ko war a lijjante waaye tamit mal gouvernance bi mën a la ndëngate gi nga xam ne moo ci lii mooy priorité yi nga xam ne moom la Macky Sall war a lijjanti waaye nag nekk fi naan xaw ma damay rivaliser ak Sonko nangam sangam loolee du méthode bu baax kàddu yi Moussa Diaw la ma ngi ci wàl fa jëre yéen kaay gi di réew mi ko di jeexee duñu xibaar naan ñoo am na juróom-ñetti militant Pastef yoo xam ne gardaa nañ leen fii ca diwaanu Diourbel la doon def opération wër ndomba di woo yi di leen sensibiliser ngir nag ñu inscrire ci liste électorale yi si lañ leen teg loxo yéen a kaay gi de alerte xëy yóbbu ñu diwaanu Touba nee na nag tey jii la ñu inauguré université Cheikh Ahmadou Bamba journal bi nee na def nañu si lu toll ci 37 milliards waaye danañu fa jàngale diine arabe wàllum métier wàllum technologie wàllum science danañu fa jàngale technologie agroalimentaire yéen a kaay gi de la peuple xëy duñu xibaar naan ñu am na benn doomu Khalifa Ababacar Sall bu tudd Mamadou Serge Sall dañu koo teg loxo ndax nag journal bi nee na da dawal oto daa di mandi ba maara day